comme niñ koy défé sa su nek rek tay ñu andat ak yeen ci seen émission bi nga xamné mom modi léral di 3e numéro euh, tay nak ñu ñëwaat fas kene dalal benen doomu Kaolack bo xamante ni euh, moom moo jiite fii nga ni di cœur de ville bu Kaolack ñu fas kene waxtané lu bari lo xamante ni war na mëna léral li nga xamante ni jëm na ci wàllum cœur de ville bi ak ak yo askan wi yitewoo nañu ko tay mom la dalal muy euh, le directeur Mbaye Ngom fas kene ko jox kaddu gi mu di nuyoog yéen laata ñuy dugg ci li nga xamante ni sax moom moo di waxtaan bi directeur ñu ngi lay dalal jàmm ci Saloum Actu TV. asalaamaaleykum euh, waa Saloum Actu maa ngi leen di nuyu képp kuy déglu Saloum Actu di leen wax ni aussi maa ngi leen di souhaiter. Euh, Euh, une bonne et heureuse année 2021 2021 képp ki nga xamné am nga ci projet yalla na ci yalla tek loxo euh, waa Kaolack ñi koy déglu tamit di seetaan euh, Saloum Actu ñoom it maa ngi leen di souhaiter bonne et heureuse année sen projet famille yoy ak sen projet personnel yi tamit yalla na ci yalla tek loxo jërëjëf. jërëjëf muy mel ne mi ngi noonu euh, di gërëm bu baax nag suñuy partenaires yi nga xam ne ñi ngi ànd ak ñun à chaque fois ci émission bi ku ci mel ne waa ISO interbusiness muy mel ne ñu yëngu ci wàllum sécurité ak euh, leneen ak yeneen numéro téléphone yi du ñàkk di ngeen ko am ci suuf euh, képp koo xamante ni soxla wàllum sécurité muy garde du corps wala nga sa société wala sa kër nga mën leen a contacter ci numéro yooyu nga xamante ni mi ngi ci ñoom la ñuy àndal durant émission bi comme ni leen ko waxee rek tey ñu dalal ki nga xam ne moom moo di DG bu Cœur de Ville dañ koy àddu rek ci question bu njëkk bi muy lan kër de ville euh, tey bu ñuy wax kër de ville ñu bëri ñi ngi koy xamee ci am ñëw rek euh, def ay loisirs rek yooyu te ku ne xam na ne kër de ville njëriñam weesu na loolu noonu tey lan nga ñu mën a xamal ci euh, tënk yu gàtt rek ci lan mooy kër de ville ak lan moo ko tax a jóg. waaw cœur de ville moom dafa doon complexe boo xamante ni multidimensionnel la complexe boo xam ne lépp lu ñu mën a soxla ci euh, réew wala ñu soxla ko ci dëkk mu ngi ci biir cœur de ville soo jëlee wàllum finance mu ngi fi soo jëlee wàllum jënd ak jaay mu ngi fi wàllum administration tamit mu ngi fi ay banque yëpp installé wu nañ fi euh, xalaat nañu aussi xale yi moo tax euh, ñu ci bëri sax yaakaar ni wàllum loisir la parce que nee nañ xale mooy njëriñu ëllëg mais soo xoolee cœur de complexe bi doon na loo xamante ni eh, dama faral di wax ni waa Kaolack ñoo ko moom mais malheureusement waa Kaolack xamaguñ ko bu baax wala ñemeeguñ ko ñu ngi koy commencé nag xam le nànk-nànk parce que ñu ci bëri installé wu nañ fii te gis nañ seen njëriñ euh, soo xoolee euh, administration bi mooy SID Saloum investissement développement ñoom ñoo yor lépp lu wàllum euh, loué cantine yeeg jaay cantine ak magasin yi ñoom ñoo war tamit événementiel bi amna tamit benen partie buñ nane parc de loisirs et culture moy manège bi comme niñ eh, ñu koy depuis 2019 2020, ak 2020 ñu commencé fi installer édifice ak ay structures étatiques yo xamanteni ñom euh, ñu ngi ci di ci gis seen lu ci université virtuelle du Sénégal ñepp xam nañ ci cœur de ville la ñu nekk ñu am fi lu plus de 1000 étudiants. ñu def fi tamit ay structure de loisir comme ni nga ko xamee ay terrain de foot ñu ngi fi manège bi am na fi euh, salle de cinéma bu fi nekk boo xamante ni euh, ay ONG dañ fi ñëw di installé wu. am na banque bu fi installé wu récemment et ñoom gis nañu aussi njëriñ bi di leen wax ne tamit am na ay espace yu bëri yu fi nekk yu fi yu fi des euh, ñu ngi ñuy nag am na ay structures yoo xam ne pour le moment mënaguma wax seen tur parce que dañuy nekk di di waxtaan mais ñu ci bëri euh, ñu ngi ñëw di ñu jege pour mën a installé fii ci kër de ville bi parce que gis nañ ni set na gis nañ ni tam am na sécurité ak guddi gi tamit éclairage bi fi am ak organisation bi fi am surtout. Mmh. wax nga muy euh, li nga xam ne moom moo di structures yi nga xam ne yu bëri ñu ngi ciy installé wu fii ci diwaanu kër de ville jamono yi la ci gannaaw ñu doon nemmeeku ne gis na ne Auchan bëggoon nañ ko fi taxawal mi mel tamit ci biir euh, ñu gis ciow yi nga xamne amna ci ba affaire bi taxaw jamono ji nak ñuy dégg ci wéwu bëy amna euh, sax ne waa mairie dañ ko récupérer pour ñom war am fenn fo xamne war nañ ko fa yobbu euh, lool non ndax dafa dëgg la wala su fekkee dëgg la tamit yeen nan ngeen ci fas keneen taxawee yéen ñi nga xamante ni sax japp nañ ne wala bok mën nañoo wax ne sax yeen fi indi won projet bo waaw xam nga en tant que responsable mom ay rumeur duma né euh tontu jarul tontu mais euh, su fekkente ni lu am la li may wax projet de base au mën na ñëw installé wu fii Kaolack euh, nekkul woon pour ñëw pour Serigne Mboup nekkul dafa ñëw pour cœur de ville dafa ñëw pour waa Kaolack man su ma sañoon dix champ am Kaolack parce que xam naa njëriñal champ parce que liggéey naa fa. Euh, léegi nag ay rumeur la ñu ngi discuter ak waa mairie et tout ça su fekkee luy am la tant mieux mais je pense que xam bi ma xam champ euh, suñu doon dem di discuter ak mairie wala su fekkee ñu ngi discuter ak mairie ñoom dinañ ci def beaucoup beaucoup beaucoup d'attention parce que euh, installé wu Auchan doo ñëw rek installé wu noonu day am commission te xam ngeen ni aussi euh, ñun boog yëgaguñ ko te suñu président mu ngi bokk ci commission bi mooy chambre de commerce je pense que loolu su demee bay sotti bay officialiser wu dinañ toog ñun waxtaan ak ñun te suñu ñëwee toog waxtaan ak ñun ñun dañ leen wax seen suñu xalaat parce que ñun dañ fi nekk pour andi solution dañ fi nekk pour le développement de Kaolack que Auchan installé wu cœur de ville wala mu installé wu feneen ñun wax dëgg yàlla dérangé wu na Auchan su fi installé wee tant mieux am nañ contrat nag bu nekk en cours je pense que Auchan suy dem bay installé wu feneen dina wax lu leer ci ci ci contrat bi euh, et puis su fekkee nag tout est tout est tout est réglé suñu installé wu feneen ñun ça nous gêne pas suñu sañoon mu installé wu feneen mais euh, place bi gën a pour Auchan installé wu à Kaolack pour commencer c'est cœur de ville la parce que ñun ñoo defoon étude bi ma fa nekkee en tant que directeur technique du Auchan Sénégal man ak directeur de développement ñu ñoo def étude de Kaolack boobu xamaguma woon sax ay sëriñ bu mag yooyu mais xam naa Kaolack bu baax euh, Auchan seen possibilité bu njëkkoon mooy ñu installé ci biir marché bi parce que ñëpp xam nañu Auchan day jaay te jaaykat dafa war a jege marché loolu la woon mais ñun bi ñu defee étude bi amuñu emplacement pour mun a nekk ci biir marché bi da ngay toj te nag doo ñëw ci dëkk di toj ci lañ gis cœur de ville bu fi installé wu. mais que Auchan installé wu Cœur de Ville wala Mérina wala Sing wala feneen wax dëgg yàlla ñun moom dara dara dara dérange mais je pense xam bi ma xam waa Auchan xam naa ni nañ ci def euh, prudence te ñi nekk tamit di discuter ak ñoom bu yeboo aussi ñu xam le le retour leen di ñu doon dégg sax ñu ne ci wàllum installation boobu noonu li ko bloqué woon mooy euh, règlement bi nga xam ne mooy distance bi nga xam ne ñu ngi ko war a wax jëm ci Auchan ak tamit marché bi nga xam ne moom la fekk ci gox ba loolu noonu tey est-ce que nekkul ne moom moo bloqué woon kii euh, liggéey bi ba tax na Auchan installé wul fii ci kër de non loolu mënu ko bloqué parce que xam nga décret bi lu mu wax dafa leer décret bi dane mille kilomètres huit cent à huit kilomètres à vol d'oiseau diggante marché à cœur de ville c'est 350 mètres mais au mu ngi installé wu feneen te respecté wul distanciation boobu lan moo ko may décret bi dane am nga dérogation boo xam ne c'est motivé par le comité sous le contrôle du gouverneur te fii Kaolack loolu am na gouverneur bi motivé na ko bind na ko jox na ay argument yan moo tax lu ci mel ni emploi bi lu ci mel ni accessibilité cœur de ville expliqué tout sax ba ñu validé woon mais dañ dem ba ci biir ñëpp xam nañ ni président Serigne bu annoncé candidature à la mairie de Kaolack ci la waa mairie commencer def influence politique mën nañ wax liko actuellement compagnonnage politique mais nous, lool loolu dérange ñu dérangé na Auchan parce que c'est un manque à gagner c'est un chiffre d'affaires bi calculé parce que man bokkoon un ci euh, comité euh, CODIR bu Auchan xam nañ calculé pour Kaolack rentrée rentrer ñu ci le am fu toll ni Auchan la gëna que ñun parce que ñun Auchan fay nañu cinq ans de loyer maanaam fii ak cinq tamit su fekkee dossier bi c'est pas réglé ñun amul lenn lenn lenn loo xam ne mu ngi ciy yàqat suñu demee nag ba soldé suñu contrat ak Auchan Ah, ñun que Auchan tabax fi wala bañ fi tabax ñun dinañ fi def un bâtiment R plus 1 à usage commercial parce que ministre du de l'urbanisme signal nañu autorisation de construire depuis 2019 ñu ngi ko yor nag xam nañu autorisation de construire 3 ans lay durer ñun fi ak 3 ans si c'est pas soldé ñun dinañ fa def suñu bâtiment à usage commercial euh, suñu contrat ak Auchan 5 ans lay durer donc ñun ñu ngi ci délai ñun actuellement amul lenn luñ ci gêné lenn rek moñ ci naqari moy xañ bi ñu bëgg a xañ waa lu toll ni structure de grande distribution bu Auchan su doon benen tamit Carrefour Carrefour ak yeneen ñun ñu leen bëgg accueillir lañ leen di accueillir. mais tey est-ce que d'accord ngeen tamit ñu daal koy installer fenen en dehors de cœur de ville de Caen. bon ñun personnellement loolu dara gêné wuñ ci parce que au champ moy xol liko arranger su bëggee installé wu feneen parce que projet de base bi sax ma xamal leen ni au champ su installé woon cœur de ville mu ngi doon étudier pour installé wu Mérina installé wu mais installé wu Sing Sing loolu moo tax ma ne Auchan lu toll ni Kaolack sax daf fi war a am plus de 5 lu ci mel ni ay garage ñor yëpp war na mën a am champ mu commencé cœur de ville wala mu commencé feneen ñun wax dëgg yàlla dara dara gêné wuñ ci mu mel ne tey dañuy tëj page boobu ubbi ci beneen wax ci leneen page ba tey destiné ci cœur de ville ndax euh, Kaolack waaye ñoo ko wax du samay kàddu nee nañ cœur de ville dëgg la ñoom ñi ngi ñëw di euh, di di di ñëw di utiliser seen xaalis maanaam di ci dugal seen xaalis ndax ni mu koy waxee maam mooy ñi ngi ñëw di jël seen i place aussi di ñëw di utiliser manège beeg yeneen ak yeneen ak yeneen mais tey ñoom dañuy laaj ñu ne lan lay cœur de ville tamit di apporter li nga xamante ne moo di Kaolack maanaam loo xamante ni génn na ko ci ay poche am di ko def pour askanu Kaolack waaw Cœur de Ville dafa doon complexe boo xam ne ñu bëri eh, li ñuy réeree mbir dañu foog ne sëriñ boobu moo ko moom Cœur de Ville sëriñ boobu moom moo ko Cœur de Ville état bi moo ko moom. état bi nag dafa signé un contrat d'exploitation transfert euh, ak euh, Saloum investissement développement boo xam ne ci groupe euh, CCBM holding la bokk sur 25 ans normalement le contrat 2036, lay jeex donc pan ba deux mille fii ba 2036 mille ñun dañ koy exploiter. Comme comme contrat la établi ak ak euh, je pense que respect de l'administration administration étatique euh, parce que sont les ministère des finances ñu ngi ci ministère de l'urbanisme ñoom it ñu ngi ci te ñooñu ñooy représenter état donc euh, contrat da nga koy respecté du ma dugg ci les détails mais li ma la mën a xamal ni su fekkente ni euh, waa Kaolack ñu ngi laaj njëriñu cœur de ville lan la cœur de ville di njëriñ pour Kaolack ndax xam na doon na structure boo xamante ni ñun déjà ñu ngi fay impôt te loolu je pense que ci est état bi la jëm lu toll ni structure cœur de ville lu muy fay impôt du ma ñëw ci montant yi mais c'est colossal te ñun on est à jour suñu culture fiscale tout est à jour euh, wa service des impôts ak fiscalité ils sont ils ont le contrôle euh, contrat bi ñu am ak état bi tamit ñu ngi ñu ngi ñu ngi koy respecté concessionnaire yi tamit lu ci mel ni ay Sénélec lu ci mel ni ay euh, Sonatel ak SDE ñoom ñu ngi gis seen bopp Cœur de Ville parce que nous sommes à jour te su ma leen génnewoon les factures yu ñuy fay euh, di ngeen gis ni euh, ñun ñu ngi def une participation importante sur le développement de Kaolack en respectant li nga xamante ni mooy suñu obligation d'une société bu mu war a def ñun daal ñu ngi koy respecté et en plus li ci gën a am solo je pense que loolu sax mooy réponse bi mooy emploi local bi soo jëlee Cœur de Ville ñu muy employé direct 109 personnes ñu muy employé direct ñëpp ay doom Kaolack la ñëpp di ñëw di fi gis seen njëriñ beneen bi tamit mooy emploi indirect bi lu tolloog 1500 personnes ñu ngi jógee seen kër di xëy fi kër de but chaque jour muy tailleur yeeg ñi fi am cantine jaaykatu café yeeg yooyu donc je pense que loolu rek njëriñ la. Benen bi tamit ñu ngi nekk ci ay projet yo xamanteni euh, ku wax kaolak wax moyen de transport so gisee buntu cœur de ville gis ngeen moteur jakarta taxaw fi parce que gis nañ fi seen njëriñ su fi nekkul woon feneen lañuy dem euh, mais tamit ñu ngi étudier yeneen projet yo xamanteni euh, lu ci melni ay garage taxi dañ fi mëna a installé wu ay tata ñepp di di di fi mëna ñëw installé wu ba par nak yokku suñu yeneen structure yi parce que ñu ci bari ñu ngi solliciter sur des projets mais xam nga 2020 bi defoon nañ suñu plan de projet mais xam ñepp xam nañ ak mbas mi fi am ba tax na investissement yu bëri dañ ko gelé woon 2021 mais alhamdulillah wax dëgg yàlla 2020 bi dañ ko xalaate woon sax gënoon na euh, metti mais ren mën nañ ne euh, cœur de ville génn na ci parce que soo xoolee naam li ñu jaay ci 2019 euh, bi moo ëpp li ñu def li jaay ci 2020 bi mais li ñu dépensé ci 2020 bi moo gën a néew li ñu dépense dix neuf deux donc suñu balance du Cœur de Ville dafa positif de deux mille vingt et un bi loolu nag mën nañ ni ci situation nous lay gérer pour anticiper les les problèmes suñu président président Serigne Boub waxoon na dès le début du Covid nee Covid suñ ko gérer bu baax entreprise l'entreprise nañ def sax de ses marges. ci marge et moom la appliqué. Euh, joxe na piste yi loolu la appliqué te ñun wax dëgg yàlla cœur de ville ak groupe CCBM holding dans tout le Sénégal 2020 euh, bi mën nañ ne alhamdulilah donc comme géré nañu mën nañ ne la première partie deuxième partie bi nag muy 2021 bi année bi ñu ngi ci ay perspectives yoo xam ne ci investissement lañ koy dugal. dëgg la yéen a ngi seen émission leeral ba tey